xamu leen lan la yàlla bu yan bi diis man de ba léegi yanooguma sëriñ Abbas a yanu de man ba léegi yëgaguma dara moo ko yanu woon it ci sëriñ Mansour yanuwul dara lépp sëriñ Abbas te loolu la ñu gëm bu gëmul lool nag bu ëllëgee boo ñëwee ba nekk xalifa ci coono rek ngay dee da ngay am coono te boo demee doo fi bàyyi dara kim fi bàyyi. lim fi bàyyi mooy xilaafa bi xilaafa lan la yéen ñi dégg tubaab nañ ko jàppe institution ki ko yor koo koy Cheikh Tidiane lu leen neex wax waaye nag nañu fexe ba kenn di laal institution bi nañ ko sàmm mooy xilaafatul abbasiya amaa Cheikh Tidiane bu fekkoonte ni moo ko moom da koy yóbbaale sëñ Mansour su moomoon xilaafa gi da koy yóbbaale barsax moomu ko sëriñ Abbas moo ko moom ndax moom la ñuy doxal ak xilifaam xalaafaam xilaafaam du jëmmi sëriñ Abbas xilaafa bi jàppee nañ ko institution mi ngi mel ne président Macky Sall ndax mooy président de la république waaye du moom boo gisee ñu ngi misigal waaye bu ñëwoon fi léegi ñëpp jóg ba mu toog. waaye du moom la ñuy teral institution bi la ñuy teral institution bi li la koy xamal Senghor yoroon na ko waaye bi mu demee yóbbaale wu da ko fee bàyyi Abdou Diouf yoroon na ko da ko bàyyi Ablaye wad yoroon na ko da ko fee bàyyi Macky Sall moo ko yor dana ko fi bàyyi Serigne Abbasit xilaafaam googu Serigne Mouhamadul Mansour moo ko yoroon waaye nag bi ko yàlla soxlaa jël na ko waaye yóbbaale wul xiwaar xilaafa bi mu bàyyi ko fi jox ko Cheikh Tidiane Sall rakkam daf ni ko gardeel station bi heure bu ko yàlla jeexalee nag keneen mooy ñëw du nekk xalifa Cheikh Tidiane Sall xalifa Serigne Abbas lay doon kooku nañ ko bàyyi xel Serigne Abbas eh, du como kenn du nekk xalifaam 24 heures te àttanoo da nga fiy jóge ci saasi nee na moom lu ko wér la mbiram kenn mënu koo yàq da koo liggéey ba am garanti sonn ci lool noona moom ci mujjug dundam daf koo wax ni ko Cheikh Tidiane nee na moom daf daan toog moom lu bari di ko attaayaal ak neen saa yi sax dalay woo bu dara xewee mu la cee ciox waaw li ñuy wax ci rajo bi nag waaye benn bis même bi muy bëgg a génn àddina soxna roqa roqee eh, ba fekke na ko mu ni ko Cheikh Tidiane war ngeen a sant yàlla bu baax mi ngi tëdd ci lal bi eh, fob tànkam bi eh, teg ko ci beneen bi mu ni ko war ngeen a sant yàlla man daal bi ma toogee fii ak léegi mi ngi yëngutu di def nii mu ni dama doon xalaat bi ma amee fukki at wala juróom-ñaari at wala bi ma mënee fàttali ba fii ma toog wallahi Cheikh Tidiane musumaa mooy yàlla musumaa xeex te du yàgg mukk ba nit mere leen ni seen bàyyee def lii kii mënuñu koo fay moralement lool lañ def te wax na ko ñu ne ngeen xam ni yéen mbooloo mi ne fii dama koy assuré Serigne Abbas yalla dako may lu reuy ñii ay domam lañ amna na yeneeni doom góor ak ñom ñepp jappé wuñ ko bay li ko jappé cheikhul murabbi mo len defar ci bir mo len jox dignité ñun duñu sonal kenn yeen xam ngeen ci dara xam ngeen ci dara kuñu ko may Serigne Abbas waye waxtaanu tay wi na ngeen bayyi xel ni mooy suñu premier waxtaan moo tax li ñu bëgg a wax dañ koy wax bu ñu demee nag ba ngi jeex beneen ngi ñu dem nag ci ligne bi beneen mbir dafa bëgg ngeen ñëpp ngeen dégg ndax nag waxu sëriñ Abbas la bëgg na sëriñ Abbas gëm naa sëriñ Abbas te ay waxam ngay seet la la ca neex jëfe ko gëmoo sëriñ Abbas bàmmeel yi ñu toog mbaar mi ñu tiim nee na billaahi sëriñ Abbas borom xam-xam la lii ma ko mbaare mbaaruma ko pour ñu bañ a laal sama eh, naaj wi laal sa maam yi ne dama koo def ngir xale yi jàng alxuraan naaj wi bañ leen a laal ndax su ko defoon mënees na ko cee jam ñi gën ci àddina bi gannaaw rasulullah mooy asaabu rasul ñi ëpp ci ñoom ak soxnaam nga xam ne ñooy umma atu muminin fan lañ leen dañ mooy baqaya baqaya boo fa demee waxuma sax bàmmeel ay doja fa ne binduñu turu kenn nee na dara tiimu leen sëriñ Abbas ni lii nag man xam naa li war waaye ñii di jàng alquran te bëgguma naaj wi di leen gaañ moo tax ma def fi mbaar mii ñu dem ba mu fees fokk ñu déglu loolu bu ngeen ko xamul ñu wax leen mu ñaan waa ngi nee na fii waa ngi nga ko moom armeel yi su doon am sant santul sàll santul wadd faal la sant fekk nag wàllu yàlla bu ñëwee day màbb lépp looloy sëriñ Abbas mu ni kon xaal fii ci gannaaw man de damaa bëgg ñu yokk armeel yi muy xale yi daal xat na ci ñoom yokk ko pour ñu fay denc ay nit dañ fay denc ay nit waaye lañ ci jublu mooy bu xatee comme nii mu ni nañ fay jànge ji alquran bu feesee ñu dem looloo indi loolu mu wax ko na ñu ko man day damay ñaan yàlla ka ñu fay jëkk a denc yal na Nek sama xet ndax kuñu fi jëkk deñ kudul sama xet dañ nan Abbas da ko xet yaayu Serigne Lamine Sall bii tëngee badjan astugay moo jëkk a génn àddina ñu jële ji ko tëngee guddi la ak si Louga wax Serigne Abbas woko, ak Serigne Xaali ni man munuma dem waye Xaali andal ak ñom Cheikh Tidiane ngoy andi ñu mu ne bu ngeen demee ngeen denc ko foofu waaye nag du ma tëdd mukk te ñëwu leen deux heures lañ fi jóge ba ñëwee ñu fekk ko mu toog ca niim ga ba xaali nettali ko nim deme waxal juróom-ñaari yoon alxam moom ci boppam mu ni ko xaali waxal juróom-ñaari yoon waxul pap xaali moom ci boppam moo wax juróom-ñaari alhamdulilahi rabbil alamin ndax li xew loolu ñu def ko nii mu ne lam bëggoon mooy armeel yi fees na dégg na sëñ Abdoulaye di ci wax te yéen ñëpp dégg ngeen ko te wax dëgg yàlla li muy nuru dafa ëpp yéen gisu leen kenn ci ngi benn bàmmeel bu alaaj ma du wàdd du kenn du sëriñ Mayoro Sàll du sëriñ xaali ñu wërale ko léegi nag tabax nañ ko bal moom la mu bëggoon mu ngi bëgg a fees ñuy xamal nag mbooloo mi li amoon paase na waaye kenn dootu fa denc nit di ko wërale ay mool man pour ngeen dégg ko bu ma sañoon de damay gudd fan te yàlla na nga gudd fan ku gudd fan it danga nga faatu da nga faatu nee na mu koy wax publiquement ya bu nit faatoo ñuy déyante fan lañ koy denc ma noppal neen nag léegi bu ma faatoo fee lañ ma war a denc te kenn du ma wërale benn mool keneen kuy faatoot kenn doot fa tabax ñu xamee ko noonu ngeen dimbaliñ ci loolu mënuñoo toj nag la fa ne bu ma neexoon léegi bu ma génnee du ma toj waaye bu bintu sàll doomu sëriñ Abbas danaa toj mool yépp léegi mën naa ko te seen njaboot daañ ci ànd léegi nag loolu xas na ba am ku ne na ko jotal moroomam ku ne na suul na soreel suul bi bu ñu ko mbaalee xale yi bu ñu xajee foofu fi ñu dem foofa di jàng waaye bu fa kenn tabaxat ndax sëriñ Abbas bu fi newoon wallahi yépp lay toj ndax loolu taxuloon mu waaye comme ñu nekk dakaar rek kon ku ne war naa xool armeel yi ñi fi tëdd dañoo bari nde est-ce que tabaxal na ci kenn dégg naa sëriñ ab laay di ko wax mu ne armeel bu ne jël na place ñaari nit bu ngeen demee ngeen xool tooñ Serigne Abbas la dootu ñu ko nangu nag kenn dootu fi mu wël wallaay laal wax nañ ko borom dëkk bi wax nañ ko ñëpp wax nañ leen waaye kenn faalewuñu dootul amati nag ndax Serigne Abbas lii fi ne moo ko fi def waaye tabaxu ko woon ñu indi ko nag comme ku ne yoof di tabax ak toj fees na te dara xewagul am na sax ñoo xam ne préparé nañ fa seen bàmmeel tabax loolu kenn mësu koo dégg nañ ko dégg wallaahi ngeen dimbali ñu foofu mooy armeel yi ku génn àddina bëgg a ñëw ngi nañ la fa denc waaye bu ko tabax bàyyil mu mel nii ndax mu yaatu bu keneen faatoo ñëw ci wetam waaye fañ ko war a def ngeen moole ko karole ko kenn du ko jariñ dara amul ku muy jariñ nañu nangoo nekk boroomi xam-xam nañu am tawxiid tabax ay bàmmeel def ca fleur def ci lu mën a ne lu wàññi mbugal du rafetal barsax bàmmeel nañu fexe ba fa waaja ne ñu karale nee na buñ ko karalee def ko climatiseur waaye foofu ku fa dugg sa jëf rek yàlla daf ñuy reetaan sax ak malaayka yi dañu fexe suñu jëf nekk suñu wéttal li gën a am solo mooy alxuraan diñ doon jàng day nag profitoo ngeen xam ko nee na am na taalibe yoo xam ne fii la ñu taamoo denc waaye képp ku fi indeeti néew armeel yi yaatu na boo taamoo fee demal denc ko fa waaye bu fa kenn tabax ndax fees na yéen ñëpp ngeen génnee ngeen xool te loolu du woon taxawaayu sëriñ Abbas dafa xam ni fii rek lañ ko war a wax sëriñ Abdallah ñëw na def na ci ay band déglu naa ko wax naa ko fu ne kenn xamul lu mu doon ku ñëw di karo ñëpp a ko man ñëpp a man loolu waaye yow karo nga yëfi jàmbur moomoo suuf ba noppi nga nekk ci bàmmeel nga jàpp ci bàmmeel miir ko pour boo faatoo ñu denc la fa tooñ mënut a paase loolu loolu am science tuuti xool armeel yi ni mel ponkal yépp ci jal lañu ne ñoom ñëpp asxaabu rasul lañu ñoom ñëpp ci jal ne nga ñëw fii te xal yee tax poto yi nekk noonu eh, jamono metti rek waaye sëriñ Abbas li mu ci bëggoon mooy lu dàq lii bu xale yi jàng dem motlif seen jàng looloo doon mbir mi moo indi lii tey nee na lii bi ñu ko fiy def li ko jiitu nii la meloon eh, waaye bi mu woo nit ñi ci ngiig ji yërëm leen moo tax mu indi lii li mu bëgg a wax daal mooy na ngeen si ci dimbali ñëpp bu ñu ñëpp daal bu ñu sañoon. nekk ci kanam eh, eh, awliya yi. nekk ci kanam wàllu yii. nee na sëriñ xaalis mi ñuy denc fii. nee na sëriñ xaalis sàll mi ñuy denc fii. nii nii. su fekkoon kuy faatu dañ lay laaj fu ñu lay denc. su fekkoon dañ lay laaj fu ñu lay denc. fee lay wax moom fee lay wax. fu ñu denc sëñ Cheikh Wade. fu ñu denc sëñ Cheikh Wade. sëñ xaale ngi fi ko denc. sëriñ Moustapha Niang mu xaddamu sëriñ Abbas lu tax dugaluñ ko fi sëriñ xaal ni mukk misaal mi nag misaal mi nag ba gën ba gën a wér sëriñ xaali dafa fonkoon sëriñ Abbas ragal kàddoom bintu sàll bintu sàll eh, taaw la ci sëriñ taaw ci sëriñ Abbas ndax mooy taaw soxna Mariama Lo taaw la ci sëriñ Abbas ndax mooy taaw sëriñ soxna Mariama Lo jàpp naa ci doomu sëriñ Abbas yi génn àddina jigéen moo ci ndax moo mag faatu ko wala boog ñoo maase jàpp na ni doomu sëriñ Abbas yi génn àddina moo ci mag ñoo magante rek mooy Fatou Sall ma léegi. wala daal ci mag ñi gën a mag ci la bokk. mais bu faatoo ca ndar. waaye bi mu faatoo ca ndar. waa waa dëkk bi. waa dëkk bi. ni nañu gaaw gas. dañu ni nañu gaaw gas. balaa balaa gaa yi ñëw. balaa gaa ñuy ñëw. pour bu ñëwee rek. pour bu ñu ñëwee rek ñu denc. xam nga fan lañ ko gasaloon. xam nga fan lañ ko gasaloon. ci wetu yaayam fii. seen yeeg salaan si bab xaali jóge Louga ak xaal bu rëy Mouhamad Ahmad mi ngi fi bab xaali ni ku gas fii fii kenn du ko fi suul fee lañ koy suul Mouhamad Ahmad topp ko di ko sar ni ko papa comme gas nañ ko ba nag mu ni ko déedéet déedéet suul leen ñu génnee bintu sàll fee yóbbu ko fee eh, kon nag nañu ormaal kàddu Serigne Abbas neewuñu bu fa kenn suul waaye dem leen fa espace bi jeex na ndax tabax yi jaaduwul sëriñ bi daal nee na ñu bàyyi ci xel beneen bi jàpp na ni ziyaare ngiig bi jàpp na ni te ngiig bi am na yokkute bu rëy dañoo tëral nag ci programme bi am na gan ñu ñuy séenu ak yeneeni gan fii du ñu fi gërëm kenn ñaanal nit mën nañ fee ñaanal ñëpp nag waaye bu ñu paree ñooñu nga xam ne dañoo ñëw ngir nga xam dañoo ñëw ngir nit ñi fekk mu xat ñëw fekk mu xat xale préparé nañ ca kër ga ndax nag ngiigu ren bi ñu bari jàpp nañ waaye ñi ci gën a jàpp nag mooy njabootu sëriñ Abbas dana ko leeral waaye du fii eh, ñu xame ko noonu eh, léegi nag am na benn sunna bu sëriñ Abbas daan def man mi dama cee yokk benn ñaar te bu fi sëriñ Abbas nekkoon dana ko yokk dafa daan wax ni xale yii di jàng alquran ñeenti fan yépp te sax même bu dul alquran gis nga nit ñi li leen gàllankoor lépp mi ngi nekk ci ñàkk mën a ñàkk a mën a sacrifier joxe li nga bëgg ngir yàlla alxuraan a ko wax pour mu fay la lu bari nit ñi sax dañoo préféré ñu leen di jox seetu leen ñi ñuy jox dañuy dellu gannaaw rek ñiy joxe di leen jox rek nañu nangu di joxe bu ñu ñëwee fii nag ñi doon jàng alxuraan nañu leen bégal waxu sëriñ Abbas la de ni nañu leen bégal waxul nañ leen sarax kon comme li xew jamono yi boo nee ngir yàlla boo yaajalee yàlla nit ñi ay poos lañ yor fenn fu ne am na luñ faroof xam ko waaye boo nee bu yàlla nag ci weccit bi lañu ñëw weccit wala téeméer téeméer wu ndaw woowu yàlla nag ku koy jox da nga koy jox lu rëy nee na ñu bëggoon nag bu weextaan wi jeexul bu kenn jóg bëggu ñoot rambax rambax ay armel la ñu bëgg ñu laaj pour teral ñooñu sëriñ Abbas waxoon te ay daaray daara la ñu laajal leen nee nag teral leen ci kenn ni ñu bëggee sëriñ Abbas ku nekk joxe li nga man ñeenti nit nag tànn lañ leen mooy ñee ñoom it suñ ko laajee ba noppi bu ñu wàññi nañu yeew ñëw jox ko ko kam koy jox xam naa def nañ ko nag ca kër ga wax na ni fii kenn du fi laajal kenn ñiy jàng alquran rek ndax mooy sunna sëriñ Abbas waaye ajjuma laajal nañ fa sëriif bu mag koo xam ni ku jege Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la doomam la ci lépp di doomu Serigne Abbas di deretu Serigne Abbas di sunu jarbaat sant ñu ko de waaye ñun dañoo yëg ni jeex na bis naka tey ajjuma bu ne ci ziyaare ngi lalla na moom la ñuy laajal addiye sërif bu mën a doon boo ñëwee ajjuma kenn du la laajal ñu am nag tey gan gu rëy muy Sidi am mi macha allah. miinuma ko waaye xam naa ko yi may dem faas yépp dama koy gis waaye papaam xam naa ko xaritu baay daam wadd mii la jigéenam bi mu bokkal na rek baay yendu na sama kër ca Louga ànd ak Sahara noonu la ñu ngi nekk université xam naa ko moom mii nag wax dëgg yàlla ci yokku teg ngi ak teewaayam rëy na ngi man de mësuma fee gis ci biir armeel yi sëtu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane boo xam ne direct la kon kii alaama la màndarga la moo xam day wane ni ngii gu ren alaa dawme la ñun bi ñu ko gisee kontaan nañu waaye tiit nañu ndax moom ni mu toll ñun amuñu fuñ ko dugal waaye ci wayefam laajal nañ ko nag addiya xawma lan ngeen amoon waaye man li ma am quatre cent mille la yéen it xëy na am ngeen su ma sañoon ngeen am quatre cent mille huit cent mil xamu ko ñu jox ko ko jox nañu yem yi na waaye fii nag ñi ñuy laajal mooy ñuy jàng alxuraan léegi nag daanaka mbir yi jeex na nee na lañ koo bëgg a topp à la lettre toppe ko ci ay minutes li ngeen waroon a dégg dégg ngeen ñeenti fan yëpp ñi ngi waxtaan ñi ngi zikkar dëppi alxemes ca ngoon am ñoo xam ne ñëwuñu woon alxemes yi daan am eh, Moustapha ko wax nee na bu mujj 17 personnes lañ eh, waaye alxemes bii 70 personnes lañ yenn saa yi muy yokk ñuy mat 300. nee na moo indi ci kër yi loolu nag ca kër ga lañ ko defe lañ war a wax wax nañ fii nag dañu koy tëj ndax yëf yi jeex na nit ñi yeeweeku ndànk bu ñu demee sangu xam na ni yàkkamti nañoo dem ba laal portable yi ndax barke Serigne Abbas wàcc na fi amul réseau te sax yàlla bu am réseau waaye yàllaa ngi topp àll bi di yéeg ci garab yi yéeg ci garab yi pour am réseau man nag daanaa am réseau waaye bu tey bi sëriñ Abbas rax na ci sëriñ Lamine Sall mii moomu ko ku bëgg portable la foo gis ma ak moom léegi la ko déy ni ko man de li ma yéem ci ngi réseau bi doxul ma ne ko yàlla bu dox sëriñ bi nee na nañu joxe addiya yi nañ ko laaj du ñu jóg waaye kiy tëj ñaan bi mooy mooy Seydi Amsa ku yàkkamti ba dem nag dafa mel ni rek ñu ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane teew na moo teew fas yéene ñoo ñaanal nga yàkkamti ba dem mam mënoon naa continuer sax di waxtaan loolooy liñ waaye maa préféré ndax xam naa ni arab yi wax nañu ni xayru kalaam maa xalla wa dal nit ñi dañuy xeex ak ñoom kan moo mën a taxaw ci yéen wax lim doon wax ci fajar fàtte nañ kon kay jarul ñuy guddal nañ wax tuuti su fekkee ñiy laaj ñi ngi laaj ba wóolu li ñuy laaj sërif la wax nee na sërif mii nag bu fi sërif bii nekkul woon moom mii la ñuy laajal addi yi kii la ñu tudde bàyyi Abdul Muttalib ak Sidi Ajara ñun mooy sunu sërif waaye comme ponkal maa ngi fi nañ nekk taalibe ba beneen yoon nañu laaj addi yi beneen bi itam nee na mbooloo mi yéen ñi fi ne te yéen ñëpp dafa am lu nit seen xel ndax nag looloo war a nekk seen xel sëriñ seexay xalifa bi sëriñ Mansoor moo fi newoon lool dañ koo waree fal waaye lu rëy la fan la dem war nañ koo laaj mu ngi ni leewu fam ne mu nekkoon ku élégant mënoon a waxtaan waaye jeex na ma nga bar saxu tijaan ñu nit noonu léegi nag mu bëgg yéen ñëpp surtout yéen ñi aju Serigne Abbas ngeen yóbbaale ko ngeen wutit dog bu ngeen ñuy defal sama rakk yii ànd ak man ci xilaafa gi wallaahi moom lañu def bu continuer nii de maay dàq ñëpp ak xilaaf ndax ñoom ñëpp wallaahi man sax xam nañ ni ñoom man du ma jay kenn li may jëy nit mooy am yaakaar ci moom man li ma yaakaar ci ñoom mooy ñu ànd liggéeyal seen Abbas xilaafa nag bi mu amee ba am weer doomu sëriñ Abbas yëpp ba ci seex si xaj Malick mi nekk eh, Amérique ak ba nekk Dubaï ak xalima nek Angleterre ñom rek ko wuté ñepp la invité ci kër ga pour ñu waxtaan lool def na ñom ñi ci xarala yu bees yi ñu fexé ba ñom ñepp wax ak ñom Hadj malik ba wax ma nga ci Washington xali ba wax ma nga ci Londres bu sayri ba muy wax ma nga ci digg Dubai Idrissa ma nga ci Abu Dhabi lool def ne wax ku ne wax. ñun ñëpp ñu jaayante ñoom ni ñu jaayanteeg man man noonu laa jaayanteeg ñoom kon yéen it dimbali leen ñi sëriñ Cheikh a gën a baax moo gën a baax sërif sërif a gën a baax sëñ Lamine loolu lépp yàq la nanguwuma itam duma ko nangu ba faw doomu sëriñ Abbas boo xam ni mën nañoo wax ni dafa bon même ku ci bon nañ ko ñaanal amul ndax ñëpp a bëgg sëriñ Abbas xol bu bëgg sëriñ Abbas nag du bon moom wér na ko ñoom ñëpp ay taalibe yéen ñuy dimbalee li ngeen ñuy dimbalee lii ay déclaration la ndax nag ñu ngi toog a toog ngeen yóbbaale ku ñuy dimbali sëriñ Seex a gën kii sëriñ fa gën kii kooy wax ku ne ñiy yàq ca la bokk loolu kon nag na ngeen moytandiku man nak amna assurance defal wallahi amul ben mindeef bu ma sa ñeme tok ak man di wax lu juunu ci doomu Serigne Abbas dama daan wax Serigne Mansour limu nek ci khilatu yeb man de dana assurer ni man mako gëna bëgg sax ay doomam bu ko da ngeen ko xam khilafa li ci gëna metti moy fi mu toll moy juroom ñaari at boobu nag ma ma maa nekkoon ak moom nekk ak moom ci lépp xam nañu taawam mi ngi fi nañ ko ko laaj te booba topp ko dafa gis ci biiram Serigne Abbas te koo ko ko tax a jóg ñiit damaa bëgg ñu gunge ma bu amee juróom-ñaari at lu leen neex def leen waaye man noonu laa defoon ñun sëriñ mën Mansour dañ koo mas a sopp rakk yu mel na ñun jafe na musuñu xëccoog moom dara ci dara ci àddina bi lépp lu sëriñ Abbas moom xam ko moom ko moom lañ ko joxoon misaal mi bi sëriñ Abbas bi génn àddina fekk fi sëñ Mansoor fekk fa kenn man maa récupéré lépp kurus yi maa ko récupéré maa récupéré jaaro yi yépp ci kanamu soxna Daba def ci sama poche maa dem ca coffre-fort ba maa làmb poosam una kunaasa bi mu yore woon ubbi wu ma ko lépp maa ko jël bi sëriñ Mansoor ñëwee ci dëj bi ma jébbal ko ko te wallaahi dafa fob benn kurus bi ni ma sëriñ Cheikh téyel bi ma ni ko sëriñ bi kii du lu ñuy séddoo yaa ko moom lool laa def xam nañ ko sëriñ fekke na ko kon booba la metti woon lépp maa ko jëndal ba sëriñ Abbas nelawee su ma neexoon ma sàcc sàcc jaaro bi su ma neexoon ma jël ko da ngeen koo fekkee kon sëriñ Mansour rakkam yëpp ñépp a ko bëggoon ndax sëriñ Abbas mi ñu gisoon ci moom ci jëmmam yéen it mi ngi leen di wax leen man dey sama rakk yii ñoo ma gënal sama bopp ndax samay doomi sëriñ lañ sama sëriñ lañ te loolu laay jëflanteeg ñoom ba ma nekkee xalif naka jekk nit du tagg boppam laa usakki na man xam naa li ma wax ñoom ñépp xam nañ musuma juyoo eh, benn doomu Serigne Abbas yàllaa ma ko defal mooy juyoo mooy xuloog werante musuma ko ceegi def ak kenn ñu xame ko noonu ndax lii occasion la taalibe yaa ngi fi te nag li Serigne Abdallah di wax ni eh, te nag mu kontaan ci kenn wérta nax sa bopp ñépp dañuy daanu ci sëriñ Abbas koo dégg ma ngay wane cofeelam waaye nag nañu fexe ba ba li sëriñ Abbas sumboon ku ne ni maa cay man bàyyi alaaji raman ngoom amul woon xaalis eh, waaye ba ñuy sañ sawyee Seex Sidi Xaaj Maalik dafa dem ndar dem cay bokkam ba am fay ron banti ron yu dul jeex yóbbu ca sawyee ba def lam man yéen taalibi sëriñ Abbas dafa jot nag ñu liggéeyal sëriñ Abbas waaye jàkkaam jee nekk Louga nga xam ni at a ngi nii ñépp di ko seetaan ku dem bay dimbalee da ngay joxe fukki junni naan ceey sëriñ bi du gaaw a àgg de génnee leen li ngeen yor denc ko jox ko sëriñ Abbas jàkka ja man ngaa projet projet yi ma tëral sama bopp ba wax ko publiquement fii ñaanu ci ndimbal téye leen li ngeen yor lépp waaye lii Serigne Abbas moom jàkka ji ay jàmbur la fa ne ay jàmbur a ko fa def li ngeen di woote ci Serigne Abbas Serigne wax na ko nee na ku jeexlu ci bis kenn gën a tulaa tabi te nag képp kuy woote ak ñàkk ci sa bopp nga xam ne dangay tàllal rek noona rek ngay def ba dee bu ngeen bu leen ko nangu ñépp am wala ku amul dara ngeen ñëw Louga ni ana maçon yi liggéey ba ngoon ngeen ñibbi noonu lañ doon def ci xaaj Malick Serigne Touba jumaa ja noonu lañ ko liggéeyee taalibe Serigne Abbas yi jar na ngeen wuti tool jar na ngeen wuti liggéey li ngeen wax ci bëggeel ci Serigne Abbas dëggal leen li ngeen di di noppal ndax man ngeen a defe ne ci boppam lay wax am naa lu ma sumb de waaye bu ko kenn dimbali publiquement la ko wax lépp lu waay am na nga ko joxe ñu def ko ci jumaa jot na nag mu pare bu ñu sañoon ren fa la ñuy daaw lool la waxoon am na ay jaambur yoo xam ne kenn rek la ba ñaar mu Thiam dugal na ci fanweeri million li tax mu ñeme koo wax ci loxoom la jaar lépp lu mu ci wax xaaji Malick mii xam na ci dara nee na fu mu jotee loolu dana ko woo téléphone mi ngi leen di yëgal ni leen dem leen Moustapha bind na segu 15 millions bind na 20 millions kooku dañ koy fàttaliku dana wax nag lu rëy damaa tiit ci jàkka ji gis naa fa ku nuru Moustapha Thiam wallaahi damaa def noonu moom na te mën naa nekk. ku baax la ci Serigne Abbas fu Serigne Abbas ma sa jaaxlee bu ko gisee muuñ nañu fexe loolu nit ku ne li mu bëgg da ngeen def ne Aboubacar ku amoon alal la Ousmane ibnu Affan bu doon jamono ji multi milliardaire la ñoom ñëpp waaye kenn ku ci ne bi ngay génn àddina bàyyi woo luñ mën a miraas ñoom ñëpp seen alal jaayanteeg yonent bi jaayanteeg yonent bi def ko ci daawa bi sëriñ Abbas nag bëgg ngeen ko nag bëgg ngeen julli lool man ko lool mën a naafila waaye nag joxe bi moom des na nag nañu fexe di joxeel sëriñ Abbas loolu da koy wax fii waxul ngeen jox doom yi de wane leen ko dañoo sumb jàkka ñu bëgg bu bokk ci jàkk yi gën a rafet ci Afrique de l'Ouest moo tax eggagul ba léegi am na sax ay kilifa yu ne fii joxe ci trente millions wala yu ko ëpp moom la ñuy liggéey waaye mënu ko sontal dese nañ karo terreau moderne. terreau de moderne nag. dese nañu ay tapis. dese nañ tapis. dese nañu ay liste. dese nañ liste. dese nañu ay porte. bu ñu sañoon. bu ñu sañoon. bu ñu ci gàmmuwul gàmm. bu ñu ci gàmmuwul ren. déwén déwén nañ ci gàmmuwaay. yéen ñëpp nag yéen ñëpp nag. ku ci am looy joxe ku ci am looy joxe. ku gis xaaji Malick ku gis xaaji Malick nii dana la wax kan mooy trésorier bi amul benn doomu Serigne Abbas bu nekk trésorier bi eh, trésorier bi ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ doon na junji dara tam ci jàkka doon junji dara ci jàkka ji eh, dinaa ko wax fii dana ko wax fii mooy eh, sunu mbaar mi mooy sunu mbaar mi barki démb bi mu tawee barki démb bi mu tawee wax dëgg metti woon na baas bépp a daan loolu jaaduwul sunu gan ñiy jóge ñëw ni su waa kër sëñ Abbas gën lii rek mënuñu ko defar am koo xam ni ci yéen la bokk di seen jarbaat gi yël ne ko ni jël na engagement waxul dana ko defar de waaye dana ko kuule eh, moom lam ca yokk nag moo garaaw bu ma tudd turam ba faw waye nak ku bëgg a joxe te xamoo ko koy jox koko nak dana la wax tur wi ngeen barkelu ci ñu fexé ba déwén bu ñëwé amu nek këru gan mu nek këru gan lolu fokk mu boole ko ci waxtan bi serigne Abbas daan wax ni nit ku ne ni sa may toll nonu la sa yëngutuy toll kenn nangul kenn gën laa bëgg Serigne Abbas joxe woon nga yow Serigne waaye na nga joxe waat ñëpp nag même xaaj Malick ñoom ñëpp nañu joxe ngir jàkka ji du ñu laaj rek doomu Serigne Abbas yi mel ne bokk ni ñun ñoo war a njëkk a joxe jàkka ji daal man soxal na ma te nag sonal na gaañ eh, li ci des metti na ku am xarit ku am kuy defal yàlla ci néegu yàlla yalwaanuñu yàlla lañ bëgg a wutal néeg nañ ko ko déey am na ñoo xam ne loolu la ñuy déglu lii ñu fi jot a dégg lii fi jot a am ca jàkka ja ay nit lañ ko wax ñu engage joxe ci lu bari fas yéene cee joxe waat bu leen ñàkk a joxe ba jàkka ji pare jàkka ji yàgg na jee yàgg na xat na xajuñu fa ñeen ñëpp na ngeen ci taxaw loolu dafa jëloon décision tàgguwu ci kenn muy déclaration boo xam ne daje bu mel nii jafe na ñépp la ko wax sëriñ bii ci la bokk bas loo bas loo ci nga bokk kenn ku ne war nga sa fond nga génnee ci lu am solo wane sa cofeel ci sëriñ Abbas nee na loolu la bëgg nee na ñu ko ñépp def bu déwénee ñu xam ni nit ñi yokk nañu te wallaahi lu ci nit def da ngay gis yokkute gi même xew yi am am ci kër gi ñepp ko wara taxaw xewu kër gi dafa bari xew fi mu nek ni ñi ngi ni di wax waye mi ngi koy déclarer mi ngi déclarer rakam serigne Abdou Aziz feeg ñaar fukki fan ñun ñepp war nañu dem Dakar kep ku bëgg serigne Abbas war nga jubali Dakar muy guddi gu rëy ñu tudde ko laylatul xatmiya suñu rakk ji nag moom la ko yàlla teg ci loxoom ñu nekk ci gannaawam rek te nag ñëw na ba nag te buñ jógee laylatul xatmiya dañ cey tegaat ñaar fukki fan wàññi ko waat ñëpp ñëw luga bëgg a defit màggal nañ koy def buñ ci jógee gàmb Louga teg ci weer dem Taaba xam nga ni kon doy na waar ak yeneeni xew da ngeen ci bàyyi xel da ngeen di yokk mbooloom Serigne Abbas nit soo ko bëggee dalay jaral lépp waarewul de waxul dara taw tawxiid lii déclaration la ngeen xam nit soo ko bëggee da dalay jaral lu ne ñépp a bëgg Serigne Abbas ku nekk jàpp nga ni bu ruugi rotee rek Serigne Abbas teeru la moom nag mi ngi teeru ay gaayam de papay kii wax na ci lu rëy Pa Aman Mbuub ku bëgg Serigne Abbas di koy xool di jooy rek même ñun doom yi day jooy ci ñun mu ne ko man da doon nekk ma jaaxal abu leen rek laa bëgg mooy ma faatu rek nga taxawu ma eh, te loolu boo faatoo yow bàyyi ma fi loolu du baax lan la ko seen Abbas tontu Serif mii sëñ Serif mii bis mu ne mu wax mu ne ko Amadou. gun ngi ak teeru ban moo la ci dàqal kuy tukki Amérique nga ni cëpp Washington ñu ne la alaaji Maalik nga ne nooy def doo kontaan teeru moo dàq gunge ki lay gunge moom day waññi ko te du xam la fa xew eh, mu ni ko gunge nag teeroo ko dàq ñu xame ko noonu ñooñu noonu lañ meloon Serigne Abbas kon yéen loolu la leen di digal wax ji gudd na ne dafa bëggoon ñu gàttal ko ne Serigne Serif nee na taalibe bu dul joxe kenn du ko teeru waaw moo ko wax nee na nañuy joxe waxul nag ngeen jox doomu Serigne Abbas Serigne Abbas ba léegi mi ngi fi mu ngi fi am nay soxla te du soxla boppam waxul ngeen tabaxal ko kër waxul ngeen tabaxal njabootam waxul ngeen tabaxal ko néeg néegu yàlla bi loolu la santaane loolooy bëgg-bëgg sëriñ Abbas kenn ku ne na yóbbaale loolu na ñépp teewlu li muy yëgle muy xabaar bu naqari nag suñu waaju baax ku bëgg seex Sidi Ahmed Tidiane wallaahi alazim jeex takk ci seex eh, dafa am lu kenn amul gis naa ko sëriñ Abbas yaramam di metti mu ni dafa bëgg wantuus xam nga yéen ndax xam ngeen wantuus mooy dañuy kos almet gi def ko ci kaas bi këpp ko ci sa gannaaw nee na gis na maraani génn leen mu koy wantuus kon kooku gis na lu rëy bëgg na Seex Sidi Ahmad Tijaani fu mu gis sëriif ab sëriif dana ko teral kooku nag moo génn àddina te daan faj nit ñi di dimbali mbindéef yi ñépp xam nga mooy docteur Abou Baas léegi la génn àddina ñu ñaanal ko bala ñoo dem kenn ku ne ci mbooloo mi na jàng benn faatiha fukki lixlaas ak juróom ñetti salaatul faatihi ñu ñaanal sunu mbokk moomu baas docteur baas yàlla na xippee barsaqu Cheikh si Ahmed Tidiane li mu doon wane ci bëgg seex bis na ko tey lépp yàlla na ko leer yàlla na ko seex teeru na ko ñépp wax bismillah nañ def ñaan yi nee na abu baas la tudd اللهم صل yal na ko yàlla xare aljana ko yàlla xare aljana bu paree shérif day tëj rek ñu ñu daal di dellu nag yal na ngeen àgg ci jàmm waaw liñ ci wax tuuti rek lii Serigne Cheikh doon wax imaam ahmad ibnu hanbal dafa ni law kaanat li daawatu mustajaba la saraftuha lil amiri bu ma amoon benn ñaan képp ñun benn ñaan dañ la may dama naan naa ko nañ ko ñaanal ki nga xam ni moo ñu jiite lii Serigne Cheikh doon wax moom lañ war a ñaanal nii mu commencé yàlla jàppale ko dimbale ko ba mu continuer noonu ndax nag miraasum Sidi Hadji Malick ma si daxañ maa yi dafa nettil nii dafa am benn waaye bu génn àddina noonu la sëriñ Cheikh jëfandikoo loolu yàlla na continuer nee waa ji dafa génn àddina bàyyi ñetti doom taaw bi ak ñaari rakkam waaye nag bàyyi ñeenti nag ñeenti nag la bàyyi ak taaw bi ak ñaari rakkam kon ñeenti nag ak ñetti doom si daxay maal ñi nee na ñu woo benn boroom xam-xam boo xam ni xakim la ba muy miraas mu jël ñaari nag yi jox benn rakk ji topp ci moom ñaari nag ya ca des mu teg jox ko beneen rakk bi taaw bi ni ko mën nag ana sama ñaari rakk sama ñaari nag mu ne ko sa ñaari rakk sa ñaari rakk ñooy sa ñaari nag si daxay maal ni ko ni dafay misaal ni la nga bokk ak say rak boo ko jëlee bàyyee leen ko toog yow yaa moom lépp ndax ndax dañuy ànd nag li nga leen boo li nga leen bàyyee bokk ak yow noonu la jëfandikoo moo tax kon bu ñuy ñaan moom la ñaan yàlla jàppale ko dimbale ko ca nag loolu loolu am nañ yaakaar loolu moom lay continuer te loolu la jëfe ñun nag li ñuy ñaaral mooy ñii nga xam ne sii noonu la ñuy ndax nag wóoluwuñ suñu bopp maanaam danañu juum li ñuy wax léeg mu nekk ci ñun léeg-léeg du nekk ci ñun waaye moom bu fekkente ni ñaanal nañ ko ba mu ba miraasu Seydi Hadji Malick moom mu commencé bu lépp ay baax ñaareel ba tamit li mu doon wax fii ci armeel yi sama xel mi ngi soog a dem Serigne Cheikh ñëw naa fii ngiig fekk si fi benn rob loolu ñu ngi koy ñaan ni fekk si fi benn rob ma gis ñuy gas ci biir ma jaaxle ma ñëw fekki ki ñuy rob mani waa mais fii ab bàmmeel la woon ñu ni ma déedéet waa ji da koo maasal kii da koo maasale woon rek jal ko deg fi ay doj ndax da koo jàppaloon boppam loolu daal ñi koy ñaan ñëpp dimbalee ko sëriñ bi loolu moom lañ ci dimbale rek salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ sëriñ Cheikh sidina sidi Hamza Tidiane Nena mu ngi lay nuyu di la ziyara di la sant di ñaan yalla ñetti fan yiñ fi def ni lepp luñ fi def yal na mabruk fi nangu mubarak na sik amul ne daje bi ñu daje fi daje bu barke la ci bërëb bu barke te li wax ni ci walu cheikh na ahmad tidiane wallahi alazim neena na ma moom cheikh ahmad tidiane mo ne ko dem nga dem ci ziyara ngi te lu ne la ci daj otoom dafa pan mo ne ma ndax sa auto amna place man dama ko mako indale kon xam nga ne ñëwu fi par hasard waaw أسرة سيدي أحمد التجاني وأسرة ne mu ngi lay xamal na it loo xam mu usra Cheikh na Ahmed Tidiane ak usra Serigne Abbas du ñaari usra benn usra la kër Serigne Abbas mooy kër Cheikh na Ahmed Tidiane kër Cheikh na Ahmed Tidiane mooy kër Serigne Abbas nee na ñoom sëti Cheikhu Tidiane yi noonu lañ jàppe kër gi nee na moo tax mu ngi ñaan te amul sikk ne lépp luñ fi def ci ay alquran ci ay salawaat ci ay tawassulaat lépp yàlla nangu na ko mais nag mu ngi koy ñaan waaye wóor na ko ne yàlla nangu na ko nee na it mu ngi ñaan yàlla nii ñu fi dajee ren yal nañ fi dajewaat déwén te nga jiite jotaay bi te neena mu ngi seedeel mbolo mi ne yow ku am cër nga ci Cheikh na Ahmad Tidiane mamo mom moko wax neena nak mu ngi ñaanal rew senegal yeb yal na des di rew jam di rew natange di rew mu jëm ci kanam mu ngi ñaan barke mamam seyduna muhammad sallallahu alayhi wa maamam bu mag ak maamam bu jege bi di mawlaana cheikh sayidi ahmed tijaani nga xam ne juróom-ñaari maam kese moo dox digganteem ak moom nee nag mbooloo mi yéen ñépp mbooleem njabootu sëriñ ak ay taalibeem mu ngi leen di wax ne yal na yàlla fay leen yiw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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين